waaw en fait mooy li ma wax sànq rek par rapport ak euh, cache-misère yi nga xamante ni souvent ñoom ñooy nëbb réalité bi xam nga tey jii par exemple. Euh, mhm. sëriñ bi am na chance su ñëw fii. y a des gens qui réagissent par rapport à son cas. oui mais c'est-à-dire moom moo am chance su ñëw fii. oui suba suba boo moytul sa téléphone bi dootul noppalu parce que tout le monde voudra passer finalement à l'émission pour. ce problème réglé wu. boo xoolee léegi même ci chaîne de télévision ak chaîne de rajo yi même nit ñi pour ñu faju mm. foofu la ñuy bëgg a jaar exposer seen problème. Mm. pour ko mën ñu mais ñi amul accès boobu nag ñi amul possibilité boobu ñooñu ñoo ëpp solo du ñu kontaan parce que réglé nañ kaa am. parce que moom ñaata nit la bu représentatif la. par rapport ak population boo xamante ni. il se cherche en réalité. Mhm. ñoo ngi toog ak seen njàqare yónni ko moom. et pour te dire pour te conforter dans ce que tu dis objectif de sensibilisation rek la. voilà nee na du ko defaat. voilà moo tax mu ñëw du leneen du ko defati. donc tey ji tey ji boo jëlee. loolu ko fi indi boo jëlee problème bi fondamentalement c'est la gestion de no ressources suñu ressources yi nan lañ koy gérer. la négociation ñoo ngi doon ci waxtaan keroog. bi ñuy bi ñuy def édition spéciale bi. la négociation bu fekkee ne. stade Léopold Sédar Senghor bi ça nous a coûté dix ans de licence de pêche mais qu'est-ce que tu veux dans ce pays su fekkee ne tey jii liñ ñuy tabaxal yëpp actuellement ne nañ jëm naa ñoo ngi fay tabax ay stade ak yooyu tabax nañ arène nationale mais nañ ñu wax la contrepartie moo tax sànq ma wax ne il faut que ñu changer paradigme yi définitivement mooy comme que pendant longtemps dañ doon ñu lebal xaalis di ñu laaj ay ressources mhm. léegi nañ ñu dimbali buñ ñu lebalatee xaalis buñ ñu laaj ressources parce que tey jii boo demee Sabodola ñu ne premier lingot d'or bi Habib Thiam moo ko génnewoon demal Sabodala di nga fa gis ñoo xamante ni tey c'est des candidats à l'immigration clandestine. mais mais Pape mais Pape Djibril. Hmm. qu'est-ce que tu fais pour que loolu wàññi non mais ne la. la responsabilité les non tax mais mais niveau de responsabilité yi ñoo wuute. nous avons décidé de vivre en mm-hmm. république. C'est-à-dire que mais nous avons décidé aussi de confier les destinées de cette République Chaque... à des gens qui compétissent pour que ñoom la ñu jox la possibilité de signer. Mhm. yow bu gars yi demee di signer di la engagé au niveau du club de Paris di signer gars yi les bailleurs mais laaju la yow parce que yow yaa leen jox une confiance. Oui. laaju ñu la laaju bu ñu lay jox ay milliards la ñuy jël la contrepartie. c'est ça loolu moo tax ñu leen di interpeller ñoom niveau de responsabilité yi li nga wax léegi par rapport ak famille mais. man bugguma ñu nekk ci réew moo xamante ni kenn ku ci nekk dangay yare sa njaboot nu mu la neexee il faut que ñu d'accord ci xale bi ñu am un consensus ci lan la ñu bëgg ci moom. waaw ban taxawaay la bëgg la citoyenneté tamit mooy loolu. ba nga mais bu fekkee ne tey et c'est intéressant aujourd'hui xoolal les écoles de formation ni ñuy pulluler xoolal les écoles privées ni muy pulluler kan moo xam kan moo fay jàngale. kan moo xam ñan ban idéologie lañ fay jàngale kan moo xam lan la ñuy def ci xale yi alors que xale yi yaay ji moomu ko papa ji moomu ko école ba moomu ko koñ bi moomu ko dëkk bi moomu ko nation bi yëpp ñoo ko bokk cette volonté commune de vivre en commun aussi il faut que ñu jox ko sens sinon kenn ku ci nekk dafay def en vase clos nekk ci yëfam di ko doxal loolu moo tax tey jii boo jëlee li tax moo revenir sànq sur ces aussi bien les ressources mooy tey jii boo demee Taïba Ndiaye boo demee Zircon bi boo demee Diogo boo demee foofu yëpp c'est des villages yoo xamante ni tey déjà dañuy continuer nekk ay villages ñu fay exploiter loo xamante ni dafa am solo lool. ñoo ñu di continuer nekk dans des situations tey ji par exemple jëlal Mbour tey li muy génn ci ressource mais quel mbuur amul benn fonctionnalité d'une ville moderne. boo duggee Mbour lan mooy wane ni Mbour tey c'est une ville. au vu des ressources yi nga xam moom lay génnee. boo demee or bi c'est la même chose boo demee tey jii ba Cap Skirring ndox sax bu potable amuñu ko boo jëlee fépp fu ñuy génnee reseau te loolu mooy taal Afrique Afrique fa ñuy exploiter pétrole bi tey jii boo fa demee doo fa mën a fekk courant donc la guerre encore une fois c'est pas l'absence de paix c'est l'absence de justice justice sociale boobu la ñu war a cheviller booy seetaan le mandat de Ousmane Sembène mais ba tey sunu gars yi yor pouvoir noonu la ñuy demee da ngay gis koo xamante ni 43 degré mu jógee Dakar di dem dëkkam mais pour wane ne léegi am na mandat pouvoir la costume lay sol ci biir tàngoor wi di ko rey. su ñëwee il n'a pas le temps de parler avec les gens d'être euh, dans ce contact là qui est important. day gaaw dowaat dugg ci otom climatisé ko. Mm, waaw paradigme boobu la ñu war a changé pour man définitivement xam ne réew mi identité bi am na solo. loolu mooy lijjanti après le vivre ensemble mais pour loolu mën a am il faut que ñu bàyyi état bi nga xam dañ ko const et bis repetita. éternel recommencement du temps. Ah, doomu may rek euh, Saliou.